voilà merci beaucoup ami fidèle internaute yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy bàyyi xel ci biir Dakar Buzz Abdou Saliou yaakaar naa su ngeen gisee jëmm ji ma toogal ngeen xamante ni koy topp ba léegi waaye cas bi nag lu naa ni moom ki nga xamante ni moom la ñu jiiñ mooy l'accusé Bass dafa ñëw tey wala dañ ko seet si pour mu seetal deram wara mu indi tuuti ay leeral ci par rapport ak kàddu yi nga xamante ni Jackson yëkkati na ko jëm ci mbirum kër guñ ko jaayoon valeur cent quarante et quelques millions ak nga xamante ni moom neen daf ko mayoon mais Jackson ci biir waxam nee na li mu bëgg mooy deux cent quarante millions yi ak quatre millions deux cent soixante cinq trois cent vingt yi dafa bëgg ki nga xamante ni moo di Bas Wade delloo ko ko ndax fi mu toll nii euh, bëggatuta am ak moom benn rapport tungu ne du teew ñu netaal Bas ñu ngi lay xaar bu baax a baax. waaw Abdou Salif ñu ngi lay nuyu di nuyu képp ku toog ci sa digital di ñu seetaan à travers la chaîne Dakar Buzz di nuyu samay soppe samay xarit ñu ma fi àndal tey ñuy bëggee Bas maa ngi nuyu ñëpp di xaar ñëpp. di rafetlu tamit sees gi nga ma nar waxtaan tey échanger mhm. wax si cas bi. Euh, mais Basirou euh, cas bi man daf ma jaaxal euh, parce que Jackson bi ñu defee live def na ay révélation yoo xamante ni tey dama jàpp ni en tant que artiste nga nekk xale yow business yooyu waroo ci mën a dugg lu toll ni valeur u cent quarante millions. Euh, mu yëkkati ko jox la ko parce que nee na moom yow la envoyé xaalis bi mais man li ma jaaxal mooy ci papier yi nga xamante ni jot naa ko y a un certain mu Moulay sekk xaw ma mbay je sais pas bu mu bugg tujum moom moo nekk ci tur yi euh, tey naka ngeen def ba ba ba deux cent quarante million yooyu euh, moom Jackson nee na daf lay woo téléphone du la jot et puis mi ngi lay envoyé message doo ko tontu te yow li la gën a li wax ji li la ci intéressé yëpp mooy lu tax nga bàyyi ba lu tax mu bàyyi ba sa jour anniversaire mu indi fa ay homme de tenue pour ñu jël si la. bon avant tout Jackson c'est un frère nekk ba Amérique don un grand businessman ñu yàgg jëflante man ak moom si wàllum business du coup mu bëggoon jënd benn kër kër gi nekk Ngor Almadi côté King Fahd Palace comme que man xamante naak mu lay Babacar Seck c'était moom sama collaborateur la yàgg nañ man ak moom moom li muy liggéey mooy jëlee ay bagages Turquie ay conteneur di ko indi Dakar mu doon jaay benn kër bu nekk coté Almadi King Fahd Palace mi ngi ko doon jaay 500 millions léegi tombeek jamono boobu Jackson mi ngi bëggoon jënd kër ma ne du coup xaar ma boole leen ñoom ñaar comme ça affaire yi gën a yomb ma def négociation yi dox contrat bi ba mu lay mujjee wàññi terrain bi de cent à 240 cent mhm. léegi million ñu bi accordé man def naa li ma def intermédiaire laa boole naa leen. xam nga ñoom ñaar transaction xas na daw seen diggante man jot naa sama mandat bi ma jot muy 4 millions yu mu doon wax man ci laa si pare après tombeek ma nekk samay activité nekk sama préparation anniversaire xam nga nekk aussi studio di préparé wu et tout moom jamono boobu dafa ma woo te déggante bi man ak moom neexuloon suñu diggante et ndax ku xam Amérique xam ni rawante nañ décalage horaire bi rawante nañ 10 heures de temps heure yu mu nekk si activité peut-être boobu dama koy nelaw vice déggante bi nag neexuloon man j'avais pas compris après laay door comprendre ni y avait problème et bi ma jugee studio lamp maa ngi koy char sama grand bu baax jugee fa ànd ak samay nit dem biro jore jàmmalaay fekk fa waa Bass Family ma doon defal surprise soufflé ma gâteau et bi ma ñëwee laa fekk ñaari individus yu dugg salaamaaleykum maaleykum salaam woo nañ la ba sonn ñëwoo man j'avais pas compris biñ ma jëlee yóbbu ma samay nit taxaw ne kii du fi demee parce que xamuñu lan moo a dem te par la suite ñu ne ma convoqué la police xaw ma lan ak lan wax man je croyais que ça c'était des parce que Jackson moom il capable tout saay-saay la man ak moom ñoo bokk jikko moom il est capable de tout sama xel dem ci moom ni moom moo yónni ñooñu pour ñu ñëw jël si ma yóbbu ma xaw ma nag lan lañ bëggoon def xaw ma dañ ma bëggoon kidnappé xaw ma dañ ma bëggoon je comprends pas après si laa yëg nii Moulay Babacar Seck moom ma ko booleloon dafa sàcc kayitu këru papam daal di koy jox bi xas na ba daw xaalis xas na ba dugg li ma waroon lijjanti si loolu lijjanti naa ko ba pare. mais euh, ba sànq maa ngi dégg sa biir wax nga ni décalage horaire Sénégal euh, États-Unis dix heures de temps la euh, foofu ñu rectifier tuuti quatre heures de temps la te yaakaar naa ni boobu distance bi décalage horaire Sénégal kii Sénégal Amérique hmm. quatre heures de temps la. mais man bu ñuy waxtaan des fois moom damay nekk si guddi mu nekk si bëccëg. waaw moo tax mu war doon moo tax mu doon quatre heures de temps. naaj bi moo dul dugg kon jàll ci <laughs> <laughs> mais euh, li ma li ma li ma gën a jaaxal ci ci wax ji euh, moom nee na après transaction bi ci banque bi nga xamante ni foofu la dugaloon xaalis bi dangeen ngeen a jël euh, banque boobu noonu da ngeen a da ngeen a def transfert bi yóbbu ko Ecobank yow yaa def loolu wala mu laay moom moo def loolu. maanaam lu jëm ci wàllum xaalis lu jëm ci wàllum transaction gisuma xaalis dégguma xaalis sama tour amul fenn fu Jackson mën a génnee kayit boo xam ne c'est mentionné Bassirou Wade transféré ou recevoir amul. laaluma xaalis gisuma xaalis Jackson ma ak moom yàgg nañ sekk mbir yu gën a métti yi te coow du am te xam na sama jikko je suis un je suis une personne très honnête lépp lu ma warloon ni dama koy def képp ku ma sekkal business amul kenn ku mun a génn ne bas dafa ma war si business amul lépp lu ma sekk ak ni day yegg day parfait ku ne gis sa bopp. donc man gisuma xaalis dégguma xaalis amul fenn fu ñu mun a mentionné ni Basirou Wade jot na xaalis wala yónnee na. mais mais kii kii Moulay Moulay lay Seck comme ni ma la ko waxee c' est un ancien collaborateur bi nga xamante ne moom c' est un grand businessman moom liggéeyam ay jëlee conteneur turki la indi ko Dakar mhm. mais day dox si yeneen business comme maanaam si wàllum suuf si wàllum oto et looloo tax ma am fitu boole ak Jackson parce que man moom xamante ne. Mhm. xamante nañ te lépp lu ñu mës a sekk jaar na yoon. waaw mais euh, Basirou euh, am na loo xamante ni Euh, du du maanaam tilimal mais dañuy sel setal euh, li nga xamante ni mooy sa der euh, tey naka nga mën a nekkee xale nekk ci wàllu musique sénégalais yëpp ñu ci bari ci musique lañ la xamee nga nekkoon seen petit gàlle tey nga seq ak ki nga xamante ni moo di sa grand frère business nga valeur u deux cent et quelque quarante millions nga boole kook un businessman boo xamante ni jël na xaalisam boobu ba léegi déggul la xamul ci lan nga nekk maa ngi dégg nag ñu ni delloo ngeen ko deux cent mille deux cent millions il reste maintenant quarante millions. waaw xam nga ku boot bukki faw xaj mbow la. te affaire xaalis dafa doon loo xam ne dañ toll ci jamono boo xam ne seytaane dafa domine te affaire de seytaane ak xaalis dañoo xaw a am lien quoi comme ni ma la ko waxee dox naa ci tànk boole Jackson ak Moulay pour ñoom ñaar ñu sekk business ñu dem ba ci biir mu am lu lëndëm ma jaaraat fa ma jaaroon gisante ak Moulay ne na delloo xaalisu jàmbur balaa problème bi di dégénérer parce que man ku ma xam xamee wu ma si tooñ xamee wu ma ci wor xamee ma ci yooyu noonu quoi. mais est-ce que du génn moo tax nga bëgg xaalis mi delluwaat ko. non non du loolu Jackson moom dafa juum parce que mënoon na régler problème bi neneen lu dul muy génn si réseaux sociaux yi di wax man problème bi muy am fekkuma fi fekkuma fi après laa ñëw ñu ne ma Jackson def na live jëmale na ay mooyu tar ci yow et wax man yëgu ma loolu après laa ko yëg moom dama ko mere. lan moo tax mu indi ay nervi sama anniversaire sama nit taxaw xam nga man je comprends pas daal dama ko ci mere te moom xam na ne dama ko ci mere mm-hmm. te loolu xam na ni moom du ko ci bàyyi parce que xam na ne man borom mi pexe laa comme moom. da ngay da ngay moom. non duma ko may dara maanaam coow lii nii même bu saawaay delloo xaalis bi moom man ak moom am nañ leneen lu ñu war a lijjanti. ok mais moom euh, nee na deux cent quarante millions yi. du loolu rek la soxla même 4 millions 260 yi nga xamante ni daf la ko joxoon pour neexal dafa bëgg nga delloo ko ko. bon 4 millions yi mi ngi fii mi ngi fii tege ci place fa mu newoon la nekk ba léegi 4 million yi su ma si duggee boutique Mor Talla Fall Sandaga 13h 14h du ma fa génnee dara dal sax du ko ci am. waaw parce que nee da nga yàq non du la du yàq xaalis su ma si jëndee mburu billaay du ma si am njëgu bër. waaw loolu moom wax na ma ko. waaw moom xam na ma. bon du ma nekk di tagg sama bopp parce que saabu du fóot boppam damay bàyyi nit ñi juge ma su ma duggee ci banque jël sama carte bancaire dugg banque retiré loolu suma xaalis la loolu yoonu kenn nekku ci am naa droit dugg banque retiré sama xaalis génne maye wala ma taal ko ça veut pas dire que xaalis bu ma yor xaalisu Jackson la déedéet dafa yor xaalisam ma yor sama xaalis bu ñu sekkee business da si gis boppam ma gis sama bopp yow kañ nga fi kañ nga fi juddu ak lan la la musique may ba nga war fee yor xaalis bu bari boobu di génne rek di la di di kii parce que moom nee doon génne chaque jour yaa ngi ci gab bi eh, di di dibi di ndekkee dibi yaa ngi ci hôtel yu gën a luxe ci nga nekk. xam nga lu gën a leer mooy Jackson 4 ma jox comme mandat comme commission mi ngi fi bougé wul mi ngi fi. Ah, léegi kon na nga ko koy delloo. saa yu ko soxlaa mun naa ko ko refoulé pour wan la ne soxla wu ma xaalis boobu noonu maa ngi utiliser ngi satisfaire samay besoin ak sama propre xaalis du xaalisu Jackson lay utiliser wala may non non non. Mm-hmm. mais transaction yi nga xamante ni def na ko man dama cee gis yoo xamante ni bi 4 millions 200 kii bi euh, boobu yow la ko envoyé euh, beneen 200 ka 200 ka 2 millions 400 2 euh, millions 240 millions bi aussi tamit yow nee na intermédiaire nga ci. laaluma 200 2 millions comme ni nga waxee ñaata la. 2 millions 240 millions. laaluma montant bu mel noonu. 4 millions xam naa ni jox na ma ko te ba tey laalu ma ko mi ngi ma teg maa ngi use sama xaalis te saa yu ko soxlaa mën naa ko delloo ndax 4 millions du dara. mais est-ce que tamit parce que loolu doonul dil boo xamante ni dafa bi parce que da ngeen ko kayit yi du kayit yu baax ndax kër nga xamante ni moom ngeen ko jaay euh, ma nga ca biir kër ga ba mu yónnee avocat am mi ngi toog ci biir kër gi te faux papier yi ñu ko jox ay faux papier la man wan na ma papier yi loolu après laa ko xam après laa ko comprendre def boole leen ci laa pare transaction yi si loxo Moulay lay jaar xaalis bi si loxo Moulay lay si laay gën a yaa problème effectivement dafa sàcc ay kayitu papam te loolu soriwuma ci parce que mënu see sori li ma mënoon mooy boole leen comme que dem naa ba xam ne dafa sàcc kayit bi jëm naa ko joindre def naa sama wareef dox naa tànk jàmm ne ko mu delloo xaalis bi balaa leneen di ko si fekk muy salteel deram et moom mu nangul ma loolu di passé si la compté deux cent millions yónnee ko Jackson xam nga. gis nga gis nga papier bi nga xamante ni ci. nekk si réew moo xam ne réew mu waxoon naa ko defoon naa ko fii. sénégalais yi da ngay teg seen loxo lu leer pour ñu mën la gëm. waaw mais Jackson moom dafa teg suñu loxo lu leer ndax. papier yi mu def papier yi nga xamante ne. copie wu transaction boobu la. si turu Moulay Babacar Seck. dama bëgg lépp leer parce que am na loo xam ne boo xawee tilim rek. nit ñi mun nañ ko jëlee neneen. te bas ko xam xamee ko ci ngor. xamee ko ci si tey xam naa du ma mën a wone lépp koi parce que si télé lañ nekk et mais dama leen di won dama lay won turu deux cent millions Moulay Babacar Seck Michel Archange Diop Sénégal gis nga deux cent millions dugg na depuis la passé le trente kon foofu preuve mënul weesu loolu quoi c'est que xam nga boo weexee dunku des fois problème mun na am yow bas yow nga soof may wax ak yow daa may boo waxee donc. non problème mun na am yow mii nga xamante ni yow lu ndaw nga si simple intermédiaire ñu bëgg la mbambu coow li te fekk yow boole la nga ci am amoo ci leneen. mais moom ci biir waxam nee na yàq ngi yàgg ngeen sekk business te coow amul est-ce que business bi du xaalis bi bari euh, moo tax euh, bas bëggoon koo tëgg woon del ànd ak ki nga xamante ni moo di Moulaye Babacar Seck pour euh, pour maanaam dóor 240 millions yi. Michel je le connais moom xaalis xaalis yëngalu ko quoi xaalis yëngalu ko yàgg nañ sekk ay business yi nga xamante ne ëpp na montant bi. ëpp na montant bi. ci wàllum ay oto yu bare bu rëy ma toog fii di ko di ko kii quoi di ko fi détaillé mais bëri na yoo xam ne sekk nañ ko te lépp jaar yoon juste que malentendu am na mu topp xalaatam génn si média yi yàq ma lu mel ni xeme si loo xam ne moom waru ko en tant que frère loolu dama koy naxarlu dama koy métitlu parce que nit ñi toog seen digital di setaan vidéo yooyu noonu mën na leen influencer jox leen beneen version si bas fekk bas melul noonu bas kenn mosu dégg si ay affaire de coow xaalis non non loolu du samay mbir man musique business te business bi mooy business day fekk mu tolloog sama niveau lu nga xam ne mën naa ko lijjante lu ma mënul ma écarté wu. mais eh, problème bi yëpp euh, naka la ko waajur bi sa sa yaay dundee eh, parce que aussi tamit neexul euh, sa doom nekk xale nekk ci yoon di dem euh, dégg ñu koy dégg ñu si valeur ay deux cent quarante millions daf ko luubal. bon c'est vrai que waajur dafa dafa sori si doom. mais comme ni ma la ko waxee sànq man ak Michel suñu business suñu biir la yem xajalu xajaluñ ci kenn moom noonu la mel il est discret man tamit pare bi coow li amee ñi ma si war a dégganteel déggante naa si ak ñoom wax naa ci ak ñoom lu ñu mën a dégg après basta amul leneen lu si des man ak Michel ak Moulay Babacar Seck ñoo koy gérer te ñi ngi ci tànk yi ñi ngi ci yoon bi yaakaar naa preuve mënul weesu génne la këyit won ni 200 million dugg na kon loolu amul lenn lu ci mën teggi bon ñenn ci sénégalais yi keroog bi ñuy def live bi ak euh, ki nga xamante ni moo di Michel euh, ñi ngi naan est-ce que lii c'est parce que euh, yaakaar naa ni Bas doful nekk xale bu ndaw di dugg ci ay affaire teg dil wala jaay kër yoo xamante ni ay faux papier lay génne est-ce que tey bu bu fekkee ni coup monte la du du maanaam da ngeen a da ngeen a yàpp sénégalais yi surtout yow est-ce que du ci doon le grand perdant. non non du coup monté affaire yi weesu na buzz weesu na monté. parce que affaire yi affaire accusation la te accusation dafa fort xale laa dama nekk si yoon ku ma tooñ tooñ nga sénégalais parce que man sénégalais ñoo ma def ni ma mel. du archange du maire du kenn. sénégalais yi ñoo ma bëggal seen bopp te yàlla tax di ma jàppale di ma dooleel xale laa dama nekk si yoon sama yaay yàkkamti ma yónni ma yàkkamti ma. tu vois ba tax na comme ni ma la ko waxee sànq man du ma dugg si lu louche wala lu lëndëm non non lépp lu may dugg day leer looloo waral ma génn pour wax mais dama ne du ma ci wax. mais su ma ci waxul day ndur leneen man lépp lu ma dugg muy wàllum business wala lépp lu mun ci doon dafay leer dafay leer. Euh, maa ngi dégg sax ñu ni lekkoon xaalis bi mais dafa am ay gars ni ñu am doole ñoo nekk sa ginnaaw ñoo la financé waat pour nga delloo ki nga xamante moo di Michel xaalisam. xaalis bu ban xaalis la. Ah, xaalis bi nga xamante ni envoyé na la ko Michel 240 yi. non wax naa la 240 yi laalu ma ko jege ma nee naa la bu ma ci ndekkee du ma ci diw bër mi ngi fii saa yu bëggee ma delloo ko ko. Oh, moom kay a na dafa bëgg nga delloo samay nit samay parce que xam naa am naa xameel boo xam ne Michel moom xam na ma si loolu bari naa link bëri naa ay xameel yi nga xamante ne bu dara amee dañ may taxawu jàppale ma ku ci mel ni Baba Ndiaye ku ci mel ni Omar ku ci mel ni Fallou Faramaren Kolobaan ñoom ñëpp samay nit lañ. est-ce que du link boobu moo la ci génne parce que yow dégg naa xaalis bi commencé woon nga koo jeexal de. non non non non jeexul du jeex du xaaj non li tax ma jël taxi loolu maa la koy wax sànq y avait un problème de temps timing tey ku xam ni tey Toussaint la am na fête bu xew yoon bi day xat su ma xaaroon oto bi mun naa tardé te man dama nekk nit koo xam dama respecté heure respecté sénégalais boo ma joxee heure damay ñëw heure boobu noonu. noonu la demee moo tax ma upp taxi dem man damay sax dugg Mayga ma ragalu ma dugg Mayga reeree fa dugg lekk supp yooyu yëpp man safu ma dama radisson nag dugg Mayga laa yemale. <laughs> non jegewu ma yooyu yëpp franchement jegew ma yooyu yëpp non waxtaan wax dëgg ci la jegew ma yooyu yëpp jegewu ma lobby barki Seydina Muhammad musuma lekk xaalis bu jóge ci lobby doxuma ci yooyu. waaw mais lan lan ngay def ba war a yor euh, euh, xaalis bi nga xamante ni dafa dafa bari ni koy limee nii euh, su ma la déggee ngay wax dafa mel ni bas dafa yor ba liw te alors musique yow amagoo fi contrat yu extraordinaire yooyu lan ban genre business ngay waaw waaw ban genre business ngay def pour pour pour ma am laa dafa kin mani boobu. non xam nga dañ ne dañ ne show business buñ ne show biz da ngay dégg show ak business maanaam business mooy def man la concerné c'est privé te business bu legal la ñi ma koy sekkal ñi ngi toog di ma seetaan xam nañ ma. kon yow da nga am ay partenaires yu nekk sa ginnaaw. non bëri na bëri na am na yoo xam ne sax du ko wax cat dafa gaaw ma yàlla baax na nañu xaar ba si beneen level quoi parce que maa ngi si yoon xale laa te kenn du ma saltel kenn du yàq sama carrière kenn du ma baare. léegi euh, di sa diggante ak Michel euh, xeex bi day gën di continuer wala da koy jeexale fi non man na instant bi mënaguma ci wax dara comme que 200 yi dugg na bu fekkoon truand la comme ni ma ko waxee bu fekkoon damay sàcc wala damay kii xaalis boobu du si jot mais heureusement ba meluma noonu. ku dem ba woowaat waa ji ne ko dellool xaalis bi kooku lu jub moo ko tax a jug ba récupérer ay copie indi woon sénégalais yi nii lay dugal na deux cent million pour Mougel woo ko woo ko boo <laughs> il faut ñu jéem a jot Michel ah est-ce que du ma parce que buñ ma ko mënee jot nii dina ma gënal trop ah parce que aussi xam nga aussi dañu nekk ci réew moo xamante ni euh, sénégalais maanaam li nga xamante ni moom lañ njëkk dégg moom la gëm euh, am nañ ñu ci bëree ngi toog naan booy bi fan la dugal millions yi booy bi lan lay doyee xaalis bi parce que ñu ci bëri gëm nañ version bi nga xamante ni moom la Michel joxe ndax da ngay jël sa jël sa trois cent nga def sa pàcc di reere ay dibeeg affaire yooyu noonu voilà xam nga loolu tey bu ko génnee teg ko ci euh, kanamu sénégalais ak vidéo yi nga xamante ni moom la sénégalais yi di gis dañuy jàpp ni peut-être ci li nga xamante ni moom lañ koy moom koy dégg dëgg la en fait man li ma jaaxal ci mbir mi dafa am lu louche ci mbir mi dafa am li nga xam ne dafa nekk ci ginnaaw mbir mi parce que un simple malentendu mënul indi li yëpp ñu bëri dañ koy foog ay prank wala ay buzz weesu na foofu am na ñi nga xamante ni dañuy taxawee taxawaayu yàqal bas saltel ko yoonam et man je sais quoi te dinaa dinaa dox ci loolu dinaa dem ba ci loxo yoon def ci la ma ca war a def su ma génnee sama carte dem Radisson dem banque jënd dibi loolu man la concerné c'est mon argent du xaalisu Archange du xaalisam sama xaalis la am naa droit génnee ko am naa droit maye si am naa droit lakk ko sama xaalis la. yow gars yi la fekk sa jour anniversaire si la dañ la woon carte bi ñuy ñëw wala ñu la carte. bon loolu moo louche nag ci bëtu gars yi parce que man ku ma xam-xam ne damaa ragal surprise man surprise boo ma ne dama lay defal surprise sama xel day daw parce que sama xel a ngi daw ci leneen parce que dëkk bi moo xaw a jaxasoo quoi bi ma ñëwee ànd ak samay nit yu baax ñëw fekk si leen xaw moon jën nañ gâteau je savais pas xew dama ñëw ñu soufflé ma gâteau. xam nga woyal ma joyeux anniversaire balaa ñuy daaneel ma tourné gis ñaari gars yi fël ne ma woo nañ la ba sonn jotuñu la xanaa jotoo suñuy plainte suñuy convocation dañuy dem commissariat ñu lijjanti lool. sama xel daw parce que man dama am respect si policier takk der. ak ak nga commissariat. yegguma fa ci yoon bi lañ ma bàyyee parce que sama nit dañ taxaw ne kii dem te waxoo leen motif bi tax mu war a dem. oto bi ñu la dugal la. oto bi ñu ma dugal je pense ñoom ñoo ko commandé yàngoo la xaw ma seen oto bopp la je sais pas daal mais oto bi gaare na dugal nañ ma ci comme un simple citoyen police jël si la nga war a wuyu si man foofu laa ko tegoon mais bi ma demee ci biir ma xam ni am na lu anormal dama leen fa ba daal di ñibbi parce que man kenn du ma yablu respecté naa takk der yi trop. ma leen di saluer mais kenn du ma yablu ak koo mënti doon. Euh, te boobu ba léegi jotoo convocation police woowaatu la defoo. Ah, si ma maa ngi sama jàmm maa ngi sance maa ngi lekk bu baax maa ngi bégal samay fan xam nga maa ngi si jàmm daal dara dara jotuma bu fekkoon am na lu lëndëm si mbir mi tey du ma fekk tey mi ngi ma fekk feneen fu dul fii mais comme dox naa tànku delloo xaalis jàmbur. loolu nag moo ma jaaxal parce que xam nga man. dama dama dama nekk artiste boo xam ne bokk naa du ma ne maa gën a mettile ci sama génération mais bokk naa si ñu gën a mettile parce que man dañ may woo sax di ma menacer de mort di ma jéem a kar di ma agressé dama woon benn 11 Pro Max bu ma doon utiliser ñu agressé ma nangu téléphone boobu snap si ci nekkoon y' a 4 ans de cela 5 ci ginnaaw la ñu génneewaat xaw ma kan moo ko génnee moo tax ma ne la ku def loolu dinaa fexe ba xam kan la. te dinaa ko yóbbu ci loxo yoon mu def ci lam ca war a def. kon vidéo boobu nga nekk ci auto bi. a nekk booy. auto police da laa mës a teg loxo. juste sama benn xarit laa àndaloon ñu jàpp ko ñu wàcc ci taxi bi mënu ma woon dem bàyyi ko ma dugg ci oto bi ànd ak moom ba commissariat lijjanti kaa bi. ma doon sinap parce que man soo gisee maa ngi teg sama airpod yor sama téléphone policier ku ma jàpp du mu nangu nga yor téléphone. wala nga yor airpod loolu c'est anormal quoi. bon 40 million yi comme ni ko Moulaye Babacar Seck waxee mi ngi ci tànk yi nee na d'ici 3 à 5 jours dina ko rembourser incha allah man si kàddum laa mun a sukkandiku pour wax leen ni nii la war a demee. mun ma woo Moulaye ne ko par la force delloo xaalis jàmbur munuma ko munuma def leneen loolu wax moom waxu nit jox na ma cër jox naa ko cër man ne ko delloo xaalis jàmbur mu delloo ko te ci tànk yi la nekk dina ko delloo. parce que moom xam na man ma xam. <laughs> non loolu duma ma ci wax quoi loolu sama non non lekk bandi mënul am sa diggante ak sa frère lekk bandi mënul am ci moom lay amee ma woo ko ne ko hey ma temps non non non non pas lekk bandi pas xaalis boobu noonu nee naa la laalu ma ci takku ma ci sama tur nekk ci xanaa loolu leer mu ay business am mi ngi koy moom yàgg na dem Turquie di ñëw li la Malick wax tamit c'est c'est très important boo nekkee maanaam un businessman nga liyee ñaari personnes yoo xamante ni dañuy def business euh, yow nga fexe ba euh, mu lay jaay kër gi nga xamante ni moo di Jackson yaakaar naa mu lay ak lu mu dof dof dof dof bu jaayee kër gi même bu dee benn dix mille francs dina ko yëkkati jox ko ne la rakk am lii maa ko def ci kër gi nga ki ma booleeg dëgg la xam ga àdduna des fois di nga bëgg jàppale nit dimbali nit satisfaire ay besoins am lu mu soxla nga defal ko ko pour rek mu am jàmm far leneen di la leneen fekk la ci safaan fekk la ci nga am si gàcce quoi man lu rafet laa ci doon gis lu rafet laa ci doon xool boole leen. non non Baal Malick maa ngi ñëw. Moulay maa ngi Moulay maa ngi ñëw. fa laa jëm de Moulay joxuma lekku bandi laaluma dara si deux cent quarante millions yooyu mais Jackson bu jëndee kër Jackson bu jëndee kër Dakar suma kër la loolu boo ci amee lekk bandi ba njëriñ la ma amal mais mais attends. Euh, euh. <laughs> manager bi manager bi manager bi nee na ni ñu ko tàncee dafa métti mais du ko tàncee méttiwul. xam nga xam Jackson Jackson dafa wax lu am solo. Jackson dafa wax lu am solo. dani moom yàgg naa seq ki nga xamante ni moo di bas ay ay business. mu jox ko confiance am ci moom confiance. te aussi ay kàddu yu rafet la la yëkkati wax ci moom euh, peut-être euh, cette fois-ci il un peu dégénéré parce que euh, valeur xaalis bi mu yëkkati jox ko moo moo bari. nee na yàgg ngeen seq business des fois mu yëkkati 700000 jox la des fois mu yëkkati 1 million jox la mais dafa la jox 4 déggu la bi mu lay woo du la jot ki nga xamante ni moo di mu laay moom nee na xamul kan mooy mu laay. am nga aussi tamit bu ñu fi toogee il faut que ñu am loo xamante ni ñu lu ñu teg ci loxo sénégalais yi pour mu doon lu leer yow xale nga nekk ci sa yoon di def carrière te yaakaar naa ni bëggoo dara lu yàq sa carrière aussi mënoo seq ak nit business nga doon un businessman comme tu l'as si bien dit xaalis bi ñëw ci loxoom valeur u deux cent et quelque quarante millions mu dugg ci sa loxoom mu jaay kër gi ba pare récupérer deux cent quarante millions te dee ko ci benn cent franc. liggéey bu set liggéey bu set donc liggéey bu jaar yoon liggéey bu parfait kase amul leneen. li ma waroon def ma def ko ku ne gis si boppam problème bi bu amuloon malentendu bu amuloon Moulay bu defoon la ma waroon def comme man na ma ko defee comme Jackson na ma ko defee lii yëpp du am te dinaa fexe ba Moulay Babacar Seck dina génn dina wax dina seetal sama der comme Jackson tamit dina génn dina wax dina setal sama der lekkuma si un centime si xaalis boobu. non c'est parce que c'est parce que même su ma teeloon xam ni mu lay dafa def geste bu ñaaw boobu noonu du ma ko setaan dinaa ko teel a arrêté ne ko xaw saawaay mooy loolu mais comme que dem na ba dégénéré Michel di ma woo jotuma ma nekkoon samay business nekk samay activité préparation anniversaire studio mu ma yoo jotuma xel mun na ñaaw comme ni ma la ko waxoon sànq nga ne ma quatre heures de temps la d'accord Bass y a quelque chose bu nga xamante ne sànq la bopp kayitu kër gi. bi ko bi ko bi ko Moulay di di di Moulay la ko jox. bon kayitu kër gi ak xaalis bi. maanaam transaction boobu noonu. si diggante Jackson la ak Moulay man xaw ma ci lu bëri. xaw ma ci lu bëri. lii dafa war leer ci bopp sénégalais yi parce que selon selon li nga xamante ni Jackson wax na ko nee na kayitu kër gi ak li nga xamante ni moo di transaction bi yow da nga fekke lépp. def nañ communication à trois def nañ communication à trois naa loolu moo tax ma am fi wax ci bu fekkoon dégguma lenn lu jëm ci loolu duma ma ci génn ci ci wax parce que luma ma ci wax juum dégg naa wax nañ toog naa taxaw taxawee naa taxawaayu intermédiaire li ma ca waroon def ma def ko kayit yi dugg na xaalis dugg na Jackson nag moom moo def erreur moom moo waroon teel a gis loolu wala mu teel a koy lijjantil ay papier mag yooyu noonu teel ko ko wax parce que moom yéex na ko ko wax bi nga ko yéexee wax après si la ma commencé di woo di ma sonal boobu man j'avais pas compris xaw ma sa lu xew comme ni ma la ko waxee maa ngi activité si la coow li amee simple malentendu moo indi li yëpp. Ah, yaa ngi woon sa activité mais avant activité Jackson da la doon woo chaque jour di la jot lu tax xaalis bi dugg Jackson jot woo la jotu lu toll ak <laughs> joobal lu nice aussi nekk fa concentré wu non déglu ma ba pare concentré wu ci loolu sama téléphone ne pas déranger lay nekk su may liggéey du ma jot loolu mun na ñaaw xelam te aussi du chaque jour lay mun jël appel yow mii sëñ bi du chaque jour ngay jël appel des fois ñu woo la nga ne nii dëpp. mais bu fekk si si si on parle de business bon appel bu ñëw appel bu ñëw bu la leeree di kii. jàpp naa ne business bi jeex na l'affaire était conclue. ku nekk gis na sa bopp ku ne dem na man loolu laa jàppoon quoi yaakaaru moon mun laay woo ma wala Jackson woo ma di ma wax quoi que ce soit si mbir boobu noonu parce que man pare woon naa ci te mun laay doon na nit koo xam ne dama ko jox confiance parce que yàgg nañ business si lu bëri Fallou Colobane dama bàyyi ma wax lu dul dëgg quoi. lan ngay lan ngay wax sénégalais ak lan nga leen di rassurer parce que quoi qu'on puisse sa tur lañ ciy tudd sa frère la yéen yaay mais bokk leen papa. doon naa affaire boo xam ne metti na ma du ma su ma nee méttiwu ma juum naa metti na ma torop xam nga may lu génn bu mu génn attaqué ma en tant que frère ñi ñi tamit dañu xamee basi yar teggin ngor mm-hmm. ba mu nekkee xale amul leen lu salteel sama palmarès mm-hmm. un bon jour benn malentendu bëgg ñëw bouleverser affaire yi loolu day metti mm-hmm. te dina ñoo xam ne benn yoon la ñu yot ci cas bi bas dafa sàcc cinq cent million dootuñu déggaat lu si jëm mun nañ jàpp loolu ba ilaa yomi din abadan mhm. te loolu day metti ci man te xam nga dama di xale Sénégal ka fay kan ngi yegg si na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot buga utur kapila wawa kapila